c'est ça ràññee nañ la si ñi nga xamante ne dañuy attaqué ki nga xam ne muy Amadou Ba ginnaaw bi nga xamante ne euh, waa Benno Bokk Yaakaar tànn nañ ko mu doon seen candidat seetlu nañ la saay su ne yaa ngi yëkkati ay kàddu di ko jëmale si Amadou Ba si mbirum politique laay wax nag. Mm-hmm. tey boo toogee dégg kii di Cheikh Yérim Seck mu ne Amadou bu fekkoon doonul candidat Benno Bokk Yaakaar mu génn ci biir Benno Bokk Yaakaar dem candidat indépendant si lay gën a gën a sax am faveur gagné élection yi ndaxte dina am ñu jóge fee ñëw fekk ci ko. kooku day manipuler man ay waxam duma ci sukkandiku parce que koo xam ne nee na Amadou Ba woowoon na ko. ne ko yow ne Maimouna Ndour Faye yow woona la mu ne ko bu ma tuumaal pour ñu jàppale juuf Sarr kooku ay waxam jër ta wax. ku wax loolu. Cheikh Yérim Seck waxoon na ko fi ci plateau tele mm-hmm. beneen bi topp bërki dem bi muy dem Dior Fall ancien ministre de la justice mi nga xam ne moo jàppalu sunu sœur Sahra Wagué tëj ko ci kaso bi. Mm-hmm. moo tiwite. Ismaïla Madior Fall. waaw mooy Dior Fall. Mm-hmm. moo tiwite ne Cheikh Yérim Seck day dem ca Maymouna Ndour Faye kon ñooñu ñoo bokk benn parti bu ñu waxe waa waa waa Benno Bokk Yaakaar sax ñoo ko sponsorisé ndax ñoo ko jox seen blouse bi mu sol bees noir bi waaw defal ko ci daamina xaamaan bi mu ne nongu di manipuler di wax lu ko neex parce que moom manipulateur la manipulateur dafa garaaw maanaam dalay wax lu la naqari ba yàgg mu lay jéem wax lu la neex dafa xamul ni nit ñoo ko yeewu gën a yeewu fuuf li muy jaay naan ab jàngatkat la ab intellectuel la. day chronique xamul dara. ah mais si fin émission ba nee na man juboo maag waa APR ndax dañoo soxor. waxul dëgg ñoom la jubool day manipuler parce que bu risim bi daanoo moom dootu dootu dund travaux forcés la ne am nekk dana liggéey force dana liggéeyal Amadou Ba mu neex ko. ak mu naqari. léegi boo toogee tey moom mu toog di def analyse boobu ak yow ni nga dundee parrainage bi dugg si dëkk bi ànd ak ñi nga xamante ne muy parti bi Pastef nga xamante ne tey ah, tànn nañ seen parrain euh, ki nga xam ne muy euh, euh, Bassirou Diomaye Faye def ko li nga xam ne muy parrainage citoyen tey nga duggoon si biir dëkk bi di def parrainage tey nga gis tey nit yi li ñuy wax si régime bi ak ki nga xam ne muy Amadou baax boo toogee dégg tey li Cheikh Yérim Seck. non xam nga day manipuler laa la wax mais damay ñëw ci li askan wi gëm Sénégal ñoo bàyyi lu taq ci système bi lañ bàyyi. comme nan. dañ leen a ba. Mhm. parce que Sénégal daf dañoo xool seen bopp xam ne depuis 1960 ba léegi doxunu mhm. ñu xool lan moo tax doxunu président Ousmane Sonko ñëw leeral carte gi. Mhm. ñu xam ne ñii ñoo tax doxuñu ñu bàyyi leen. nga bokk feek nga indépendant nga dem fu la neexit doonu candidat ñëw doo fi am dara fii candidat système bi ak fu mu mën a jege du am tus ci Sénégal parce que sénégalais yi ñoo leen ba. kon da nga bëgg wax ñi génn ci ñoom dem sax duñu am dara. dara duñ ko am te buñ demee ci élection yi ñu xam ne duñu am dara parce que moomu réew bi ñoo àndutut ak ñoom. mais bu Abdoulaye Dione moom nee na war na leen ginnaaw carrément de. moo xam bu leen wanee ginnaaw bu leen ginnaaw du am dara. réew mi moo jóg pour soppeeku du ay benn groupe perso personne ñooy ñëw aakimoo affaire bi kii di di ñii di dugg fii ñii di génn fii sénégalais yi ñoo nekkul ci manipuler yooyu ñuy dox doo ànd ak nit ki ay douze ans ñëw fii naan ay candidat la bëgg a yi maayanu nit ñi président Ousmane Sonko biir affaire bi di tar yoon wi di lëndëm moom moo xuus jàll mm-hmm. bi gaay di ragale opposé wu di def ay opposition karawaat moo ñëw wàcc ci biir gain bi taxaw jàmmaarloog waa ji sës ko ci miir bi ba tee koo def troisième mandat bu ñu ko amee grâce président Ousmane Sonko Sénégal ku fi dund jàmm danga nga war a gërëmee Seydina Ousmane Sonko kon ba léegi def nañ la jaam donte def nañ la jaam instant bi mais jaam gi day gën a raw xoolal loolu président Ousmane Sonko moo ko dindi parce que ñëpp dañ ko ragaloon. mu ñëw jàmmarloo gan gi mhm. wan ko ne doo dara nit kese nga dangaa laat baatu askan wi ñu jox la ko doole ji nga yor moomoo ko doole état lañ la jox te la vingt cinq février dañ koy nangu ci moom le deux avril mu def passation de euh, service le trois mu romb fii kenn du ko réglé parce que dooley état la te buy dem da ko fi bàyyi dooley état kenn du ko yóbbu ana Ablaye Wade mhm. da ngaa xam fu mu nekk ana Abdou Diouf tey dugg Sénégal ba génn kenn du ko xam kii noonu lay demee ëllëg parce que peuple bi ñoo moom réew mi ñoo moom doole ji keneen moomu ko balay xam ne big boobu muy defee décret du dara la 2 avril la koy xam le trois avril na ñëw na ñëw bind décret kenn du ko jëfe kon loolu nit ki dangay comprendre nga jéem a yeewu. Mm-hmm. te xam ne fi ñu toll nii fi àdduna toll. Mm-hmm. population fu muy tiite nit amut de. doomu aadama fu mu tiite nit amut Hitler sax bu ñëwoon Sénégal gii di ko jiite nit ñi duñ ko ragal Hitler bu ñëwoon fii Sénégal di ko jiite kenn du ko fi ragal dana am ñoo xam ne ñooy des di résister te loolu ñun dañuy sant yàlla bi nu suñu borom boolee ci ñooñu noonu. Mhm. ñu candidature Amadou Ba noo ko gisee. gisewuma ko dara. ginnaaw ginnaaw toog nañu am dara Euh, tournée bi président Macky Sall doon def fan yi ñu génn rek am benn kilifa gu janoog moom ne ko boo demee nel Amadou Ba na xelam dal. te fekk Amadou Ba mi ngi toog ci wetam. man am naa benn waay boo xam ne keroog la ma nent li mhm. fii la nekk ci marché Yoff ne ma suñ dëkk ca côté bat la fu naan bat la ca côté Louga la dëkk. Mhm. maa ngi leen nuyu muy waa bat la yi. Mhm. ñoom moo da béy Basiiru Bey ñoom góora ñoom ñëpp ñu nekk ab dëkk boo xamante si nii bokk na ci dëkk yi nga xam ne dañ leen a wan ginnaaw aussi ay éclairage public yooyu yëpp amuñu ko daanaka boo xoolee sax seen bo ñoom ñooy développé seen bopp. Hmm. mu nekk dëkk yoo xamante si nii sëñ bi dañ leen a fàtte ci senegal su campagne jubsee lañ fay dem ay ñoom batlaak dëkk yi nga xam ne ñoo wër foofu. Hmm. te ay jàmbaar nekk fii di góor góorlu lu ñu am yóbbu ko foofu nga xam ne ab arrêt lañ fa doon demandé mayuñu leen ko. Hmm. ñu ñëw ci arrêt di samp ay ay ay ay tableau bi ñu samp tableau yi waa ji nee fi ñu sampe tableau yi waa ji premier ministre bi moo ñëw di ko laaj ak ñim àndal xawma yoonu yoonu fan la ko doon laaj am na yoon bu mu ko doon laaj nee na dem na ba jàll ñu koy doog a wax ne ko kee mooy Amadou Ba mooy premier xam na ne paa boobu juumul xamu ko hmm. ko xam hmm. moom kenn xamu ko di kenn xamu ko parce que daa def tournée nationale affaire bi deful effet sa dem di ko dabi di ko jéem jaay doole far mer fa affaire ba yàqu mu ñibbisi. Mhm. yan écho ngay am si moom si population bi comme yaa ngi nekk si chaque jour si biir askan gi. duñ ko waxtaane doo dégg dara ci moom moom kay day mel ne du candidat du dégguma dara ci moom kay mu ngi koy Sonko rek moom foo dem Sonko rek ngay dégg. Mhm. Sonko rek nit ñi ngay Sonko rek moom kay keneen ko am écho amut. Mhm. keneen ku am écho amut. opposition bi amuñu écho. kenn. Sonko fii su man damaa demoon man Sonko dong mooy kanda